donc ministère bi légui chaque semaine fay waxtan ak askan bi wax leen li nga xamantene mom la agent yi jot def ci terrain bi ndax euh, situation yi ñu toll dafa nek situation bo xamantene lepp lo xamantene information bu wara amal jëriñ askan bi war nañ ko mettre à sa disposition donc di wax ni service du commerce ci ñaari semaine yi ñu jenn ni euh, jot nañu def lu tollu euh, ak ñaari jooni ak ñaari jooni ak ñeenti témèr ak ñetti visite ci visit yooyu jot nañu gis ni euh, huit cent nit euh, personne nekkuñu woon respecté wuñu li nga xamante ne moom la leen yoon santaane donc euh, yoon daal di dal seen kaw mu am tamit lu toll ak fukki tonnes produit yoo xamante ne génne nañ ko ci circuit de distribution mooy léeg-léeg produit bi xëy na nekkul produit yu méngoo ak li nga xamante ne war nañ ko mën consommer donc ñu retirer ko mu am tamit li nga xamantene mom moy gel hydroalcoolique yo xamantene dindi retirer nañ ko ndax yéen a fatale ko fan yele ñu jóg génn gisoon ngeen fi ay saisie yo xamantene ministère du commerce def nañ ko ci ay nit yo xamantene ñu ngi doon produire gel hydroalcoolique bo xamantene nekul conforme yu defal ko fi pikin def ko tamit fi melni bi donc pour wax population bi ni ministère du commerce mo ngi taxaw seen wet mais ñun ñepp ñoo mom xex bi ñuy sensibiliser commerçants yi nga xamante ne ba léegi nee na ñu ngi des ginnaaw ndax euh, boo jëlee téeméer boo jël xëy na euh, euh, le tiers moom moo respecté wul un peu réglementation bi donc ñu leen ci organiser encourager bu baax a baax a baax waaye tamit di wax ni ñi nga xamante ne tamit mënuñoo comprendre yooyu sensibilisation li nga xamantene mom la yoon prévoir tamit ñu dañ leen koy appliquer donc mu nekk ñun ñëpp dañu war a jël conscience ni euh, li ñuy jamono yi ñu toll ni ñun ñëpp ñoo war a manko nekk benn rek fexe ba suñu dëkk euh, di Sénégal jóge ci situation bi ci situation ci ci anam bu rafet ba nga xamante du am benn gaañ ci population bi. plateforme commerce électronique bi également lu mu ci aajo moom mooy fexe ba nit ñi wàññi seen euh, jënd bi di dem ci ci marché yi ñu mën a fexe ba ñoom nit ku nekk fi nga toog rek nga mën a jënd euh, sa produit mën a aussi jaay sa produit donc mu nekk lu am solo. ndax dina dimbali askan bi bu baax a baax a baax ci xeexu jàngoro bi eh, di wax ni protection bi nga xamante ne moom la ministère du commerce bi leen di indil ci wàllum prix ak ci wàllum qualité produit bi ci marché yi nga xamante ne moom mooy marché traditionnel yi même protection bi moo fi nekk ci wàllum commerce électronique bi ndax nekk commerce électronique taxul nga bañ a respecter règles yi nga xamante ne moom la fi état teg te di wax ni. bi ñuy lancé euh, euh, stratégie commerce électronique ñu faut prévoir woon li observatoire du commerce électronique pour que nous quelque part da fay jouer ben rôle de régulateur nous avons besoin ben yoon li nga doon la direction du commerce intérieur di def déjà manam di protéger le consommateur mais ñaari structure yoy bu ñu boolee seen i da tax. Euh, protection bi nga xamante ne moom la ñu war a indil consommateur bi nga xamante ne moom moo nekk en moom mooy jënd en ligne ñu mën ko indil